Thiénaba Gare mu nekk rek euh, ci commune bu Thiénaba euh, tey mu mel ni investissement humain bi nga xamante ne le maire Talla Diagne au conseil moo ko jiite ñu gis tamit euh, ci teewaayu Serigne Talla Seck mi nga xam ne doomu Serigne Thiénaba la mais également nekk président ASC étoile bi nga xam ne moo nekk fii alors président mu mel ni tey investissement humain bi set setal bi tey daf mel ni ñëpp rek dugal nañ seen loxo pour mun a sotti li ni mel lan moo ci tey sey kàddu alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala man إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ورضي الله عن تاج العارفين وممد كل أولياء الرحمن صيح التجاني الذي ساعد طريقته بين البرية برهان البراهيم ورضي الله أيضا عن سيخنا ووسيلتنا أستاذنا سيد المجاهد الأكبر ما محمد داك رضي الله تعالى عنه أه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara gën ji nuyoo nuyoo bu tedd bu jóge ci xol آه، di jëm ci kilifa dëkk bi ndax comme ni ñu ko alxuraan jàngalee rek wa atul bu yu tamit abuwaa bi ha euh, dëkk moom boo fay dugg da nga jaar sa bunt ba kon ñu ngi nuyu xalifa général bu Thiénaba di Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck di ko ñaanal wér ak gudd fan di ko ñaan di ko ndokkeel tamit si gàmmum gii ñu jub si yàlla may ko si mu dugg si si bisimilahi rahmaani rahim génn ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu population Thiénaba gi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp macha allah alors euh, très bien kon tey mel ni gàmm gi ci wàccaay ba léegi rek lañ nekk ginnaaw opération yu mag set setal mm-hmm. tey li nga xam ne mm-hmm. euh, maire Talla organisé na ko fii yéen ñëpp ngeen sumb ci seen loxo euh, di ay doomu soxna di ay kilifa ñëw bokk ko ak ndaw yi bokk ak doomu canaba yëpp mm-hmm. tey yow nan ko gisee waaw sant yàlla bu baax di gërëm tamit maire Talla Diagne mi nga xamante ni moom moo lu mel nii te yéen bi salaa salaam da ka daan woote fu toll bañ na ba chaque jour fu mu musaan di jàngale da koy jàngale muy an nazafatu iman set dafa bokk ci gëm yàlla te tamit ñun boo boo nee sekk nga sant sol sa garam bu toog ñu woote set setal kenn ñëwul nga toog sa kër nga war a accueillir say gan ñu ñëw fekk dëkk bi mel na naka sudul noonu kon loolu tamit euh, nekkul loo xam lu jaadu la nekkul lu rafet kon faaw ñu simi si ñu yére ñëw surtout nag bi mu ñu woowee ci méthode bi nga xam ñun ci la ñuy yëngatu muy wàllum sport woo ASC bi nga xam mooy ASC étoile bu nek fi ci dëkk bi ñu ñëw comme ay délégation ñu ñëw comme comme ñëwal ñi nga xam bi comme jour mom duñ am ñi ña ngay jàngi ñi ña nga faneen ak faneen ñun ñun la yàlla def ñu fété fi ci dëkk bi di fi doxal liggéey ma Ahmadou Ndak euh, ñu am ñëw and ak Alpha Ibrahima sar ak président Moulay choy ñu ñëw fi pour jàppale euh, monsieur le maire Talla Diagne set setal bi nga xam mom la war fi ci dëkk bi ndax euh, set dafa bok ci gëm yàlla dafa bok ci jaamu yàlla ndax islam bu ci set génné rek dara dootu ca desat

Euh, jërëjëf Aboubacry ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, di sant waa Thiès Info ci occasion bi nga xamante ni moom la ñuy jox di nuyu bu baax euh, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam te yokk wéram di wax ni loolu sawar naa ci pour tontu ji parce que yàlla dafa def ni commission gàmmu gi dafa am commission commission bi def nañu set setal tubaar fa kàlla macha allah sites yu bëri laal nañ ko mais ci boppam aussi amoon ay partenaires am yoo xam ni dañu ne ko woon dinañ la appuyer pour que aussi ci gàmmu gi ñu jàppale la nga mën a yow it set setal boobu it moom li mu bëggoon mooy mu ñëw matériel bi teel a ñëw mu ànd koog wàcce na ma mais comme matériel bi yéex na ñëw mom tamit mu ne na organiser ben journée de set setal pour que fay waa ba yemoon mom mu tambalé fofu inshallah pour eggale li nga xamante mo ci dess kon tay lolu wax deug yalla don na lo xamante lu rëy la don na lo xamante lu am solo la ndax fi ñu jëm da fay goo xamante ni am solo la ci ba am ci taxaway bo xamante taxaway bu wër la monsieur le maire xamni momit war na ci duggal loxom mo waral lii waaw alors très mu mel ni toujours rek dañuy gis monsieur lépp loo xam ne am na ci biir commune bi euh, da ciy dugal loxoom mu mel ni tamit euh, war ngeen ñaax li nga xam ne rek mooy ndaw ñi ak askan wi ci li nga xamante ne rek dafa nekk njëriñu ñëpp waaw jërëjëf Aboubacry loolu aussi dañuy woowaat ndaw ñi bu baax di woo jigéen ñi di woo askan wi di leen wax ni Thiénaba ñun ñoo ko bokk Thiénaba aussi ñun ñoo ko mën a defar duñu xaar keneen ñëw duñu ko defaral kon nag war nañu lépp loo xamante ni jóg na ci ba ñun ñëpp ñu boole suñuy force muy ndaw muy jigéen muy mag ñun ñëpp ñu boole suñuy force def ko ci ba ñëpp xam ni ba wax dëgg yàlla macha allah. seen seen seen lépp takkatoo nañ ko defar nañ ko tegu nañ ko ci yoon te lépp jaar na ci yoon macha allah looloo tax nag ba nga xamante ni ñi ngi woo ndaw ñi ñi ngi woo jigéen ñi ñi ngi woo xale yi ñëpp ñëw nañu tubaar fa kàlla mais ñi ngi leen di gën a encouragé waat ci yu mel ni journée yu mel ni bu amee ñun ñëpp nañu gën a jàppoo gën a takkatoo pour mën ko liggéey mu jaar ci yoon alors mel ni gàmmu Canaba gàmmu gu rëy la parce que nit ñi dañuy jógee fu ne ci biir réew mi ci bitim réew euh, ñëw fekk si est ce que tey lépp yemb na rek pour gan yi mën a dund euh, gàmmu ngi ci condition yi war. macha allah tubaar fakàlla vraiment loolu moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax am na commission boo xamante ni tey El Hadj Diop soppe na bi moo ko jiite euh, bokk ko aussi ak ay naataangoom yu bëri yoo xamante ni ñoom bu. balaa weer wee teru sax ñoom wax dëgg yàlla commencé nañu seen liggéey lu ne ñi ngi koy def

ay ndaw jiite ay kuréel nekk fii ci biir dëkk bi naka ngeen koy jàngatee. waaw jërëjëf dañuy nuyu ñëpp ñi nga xam te ni tey ñu ngi seetaan seen kii bi seen seen moyen de communication bi euh, ci loolu aussi ñuy jiital euh, ci nuyu bi monsieur le maire de la commune de Thiénaba monsieur Talla Diagne ak général de Tidiane euh, de de Thiénaba Cheikh Ahmed ak le sous-préfet de Thiénaba donc sous-préfet le maire acte bi mu def nii yaakaar na acte bu noble la parce que lii tamit association sportive yi lii la war a war a def. parce que nous avons football nous avons au moins que investissement qui quartier d'autant plus que nous aussi préparé un événement un événement gamu il y a jeunesse mais malheureusement nous ñi ñëw rek euh, mais ñi ñëw aussi dañuy yóbbaale ñeneen ñi mais euh, en tout cas c'est un acte noble boo xam te ne le monsieur le maire def na ko parce que tamit euh, moom na toog rek croiser les bras daal ne ah, man koñ bi euh, dëkk bu setee ak ak bu tilim yëpp sama yoon nekku ci mais tamit xam na dëkk moom lu set moom la moom lu tilim aussi moom tilimal donc il a mis de gros moyens pour que investissement humain bi vraiment jaar ci yoon donc ñu ngi koy remercier aussi acte bi mu def aussi tamit acte bu noble la te ñëpp aussi war nañ kaarooy tey fii dañoo waroon def foo sànni mbàtt mu mu tàkk noonu ko olof di waxee ñëpp génn parce que tamit suñu koñ la bale suñu quartier la bale kon maire su jëlee ay moyens def ko ñun tamit dañu war def suñu kéem kattan parce que nee euh, mag moom yor na euh, xalaat mais xale moo yor kattan comme ñun ñoo kattan bi aussi dañoo war a génn ñu investir ba suñu quartier yi suñu koñ yi set parce que dañuy teeru ay gan te gan nag soo koy teeru aussi ci conditions yu baax nga ko war a teeroo waroo ko teeru ci ay conditions yoo xam te ni parce que euh, fii mooy entrée dëkk bi dafa war a set bi dëkk bi aussi set parce que nit am image bu rafet ci Thiénaba image kenn duñ ko defar ñun waa Thiénaba ñoo ko defar suñu bopp loolu moo tax euh, maire il a mis les euh, woo la jeunesse euh, jeunesse bi aussi tamit am nañu ko aussi mais li doon ñaan daal jeunesse bi ñëpp gën a ñëw gën a taxaw ci ginnaam parce que li si apolitique ñun ñëpp ñoo ko bokk kaay seetal suñu kàddu kaay seetal suñu koñ yaakaar naa ku nekk dañ ci waroon sóobu jàpp ci bu baax a baax voilà merci beaucoup. ok. territorial mu mel ni tey euh, wàccaayu gàmm yi diggante opération set setal yeeg lépp euh, tey yéen a ngi euh, ci njeexital bi nekk fii ci Thiénaba bagar mu nekk ay moyens yu am solo yoo xam ne dep déployé ngeen ko indi ngeen ko ay pelle mécanique ay camion ndaw ñi tamit ASC yi ñëpp euh, ñëw fekk si la ci liggéey bi monsieur le maire tey lan mooy doon say kàddu. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, xanaa kàddu yi moom kàddu sant yàlla rek la. Euh, ndax lépp lu jëm ci guddik Seydina Mohamed lépp loo ci def sa bopp ko ko defal même bu ma nekkuloon maire lii dama ko war a organiser surtout nag bi ma nekkee maire nga xam ni population Thiénaba ak mbalitu Thiénaba vraiment ak set setatu Thiénaba lépp man la war loolu moo tax moo organiser tey am partenaire yu ma jàppale pour ma mën a xam nga lii tey bu fekkee ni wan matériel bi maire bi moo ko mooman kon lii xonte du ko fi fekk parce que nag dafa jaadu woon euh, commune bu nekk bu ko mënta am matériel bi yëpp it lu bon bon mu am camion wala mu am peel mais nag loolu euh, ci cinq cent 557 communes commune neexula lijjanti te commune bu nekk yaa war a lijjanti pour am sa matériel bopp waye xam nga ci commune yi am doole mais bu fekkee da nga commune boo xam euh amoo marché eh, amoo ay partenaire yu la jàppale vraiment amoo nit ñi doon fay impôt euh, pour nga mën a am foo jëlee xaalis ba mën a jënd ay camion loolu du yomb mais nag insaara bi am nañ ci yaakaar ñu ngi koy dis état bi pour ñu jëm ñoo jàppale même bu doon benn camion ak benn peel ñu am ko parce que toujours cene ba toujours ña ngi set setal ndax waxuma la gàmm gu mag gi mais gàmm yu ndaw yi rek weer wun dugg dinañ am ñaari gàmm wala ñetti gàmm loolu nag bu fekkee maire bi am matériel boo xam ne mën na noo jàppale ci ci ci set setal bi kon coono yi bari euh, du ñu ci dal bon aussi rek démb ba ay boori deux heures ci guddi la ñi ma yebalan euh, jóge Dakar euh, matériel bi nga xam ne moom la état bi war ministre bi war a jàppale environnement jàppale pour ñu defan set setal bi tey mais waa ji yor bon bi dafa fekkan dafa génn yàlla dogal nag mu ni altine lan ci mën a jot. mais heureusement euh, fekk ñu jàpp set setal bi dimanche dimanche bi passé sax lan ko war na def mais dama ci amane aman gàllankoor pour waran ko and ak euh, Serigne Ñaana sec chef du village su sec ak population Thiénaba mais heureusement euh, ñoom jotal na noo def dimanche bi may leen amul borom problème lepp lo xamni dess na ci man suma ma luñ ci man rek inshallah bi dañ ko def mais xalaat naa ne sax ñu ma ngi jema négocier ak euh, ñi nga xamni ñoma jox camion yi ak peel yi pour ñu mëna defat defaat suba pour lepp mën paré mais en tout cas daal sunu moy ciara ba mom avant gàmm ben ben mbalit wala lenn lu taq du fi des parce que nak liko andi moy dañu amul woon site bo xamné man nañ faa yóbbu mbalit moom moo tax mbalit mi ñu ko def ci kër gi. léegi nag euh, euh, dem nañ ba sonal nit ñi mais nak am lo xam mëno ko seetaan il faut ñu jëm ko dindi jëm ko def ci kàmb gi bu fessé nak bu ñu yalla dimbalee bu ñu amé site bo xam bu ëllëgee parce que commande naa ay saret sareti mbam yo xamné eh, dañu wax ni bo amul. Euh, doole da ngay jàpp ci li nga mën a am li nga maanaam mooy commande ay sareet sareeti mbaam yoo xam ne da koy jox ay nit ñuy tonni mbalit mi seen kemtulaay kartan di ko yóbbu ci benn site boo xam ne sareet nag commande naa ko mais site boobu moom amaguma ko mais en tout cas dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy rek commission gàmm gi waxtaan ci ak euh, sëriñ bi waxtaan ci ak chef di village ba incha bi ñun suñu amee benn site rek lépp luñ amati ci mbalit di ko yóbbu foofa continuer nag di def suñuy démarche ba saa bu nu yàlla dimbalee ñu mën a am camion boo xam bu ëllëgee deetuñu luye ji camion wala ñuy abbi camion nga xam ñoo koy defal suñu bopp incha allah bi bu boobaa deen ko mën a def. Euh, monsieur le maire est-ce que tey jumtukaay yëpp pour def euh, gàmm gu jaar ci yoon yemb na fii ci biir Thiénaba. Euh, waaw lu ci bari nag yemb na état bi li nga xam ne moom la ne diggee woon ak ñun vraiment wut nañu ko def ndax danoon cinq jours avant gàmm trois jours après gàmm cinq jours yi mat na. mais xam nga ne ba dix jours sax doyu ko parce que dëkk la boo xam ni dafa bari ay sën dafa bari am ñax ndax euh, ci biir nawet bi looloo taxan ma waxan ASC yi may leen kenn ku ne bu commencé buntu këram bay ko rek bu ko ñëpp defee benn ñax du am mais nag wax dëgg yàlla ay ASC yi Ablaye Diaw mi seen président nag sonn na ci lool euh, démb ba léegi mi ngi woote mais gis nga fi mu ne toll liggéey lu ci boppam moo jafe am na ñoo xam ne dañuy jàpp ni sunu déplacé pour liggéey ak yabel la ci ñoom mais am na loo xam ne sa euh, gënul ci ndaw parce que euh, nawetaan du football rek nawetaan da nga war a dugal sa loxo ci lépp bépp activité boo xam nit ñaa ngi koy def da ce cee war a dugal sa loxo pour nit ñi xam ne ëllëg saa boo soxlaa man wax naa ko léegi nee naa leen bari na ci ASO yoo xam ne guddi la ñuy topp ñëw sama kër. war na noo am mat sàngam war na am mat sàngam ma yëkkati cinquante mille jox leen ma yëkkati cent mille franc jox leen ñooña kenn war leen fa mën a jiitu mais dafa naa ni ñooña euh, ak ñi nga xam ñoo teew. ma jàpp ni daal euh, matériel bi moom euh, am na lu ñëw am na lu des waaye li nga xam ne moom la état bi diggé woon ñun li ci ëpp moo ko ñu ngi ci lu jëm ci wàllu courant bi euh, biig rek délégué ñëw na ci man ne ma li nga xam ne moom la état bi waxan ni moom la ciy def li ci ëpp ñëw na ba incha bi dina ko ànd ak ñun léegi la ma Mamadou Tall di woo parce que dañu procès bi dañ koo jox ko xam ci dëkk bi fi la fi la dëkk woo ma léegi di ma laaj ba xam ndax samay làmb man ko man sama commande ñëw na biig commande boobu nag incha bu jeexee fekk gàmm ma wutiwaat ab commande parce que daal bëgguma benn làmp ci Thiénaba euh, ñu nit làmp koñ sàngam amul lumière wala penc mi amul lumière lépp loo xam daal incha allah bi euh, war na ci ma ci man bëriwuma doole mais dinaa ko def mais maa ngi sant état bu baax nag ndax am na ci côté boo xam ne jàppale na ma ci bu baax a baax baax Euh, te it euh, mën na ko cee bañ a fekk parce que lépp lu jëm ci wàllu courant maire yi la war waaye ñoom xam nañ sama maire yi amul doole loolu moo tax Adama Diop vraiment ak ñoom Tanor ak ñoom Gora Diagne lépp lu leen war def nañ ak ñoom Abdou Diouf kontaan naa bu baax a baax parce que nag nit ki kenn rek mënul dara te su nee man maay mair maa war a coordonné maa war a def lépp dara du sotti mais ñoom équipe la boo xam ñu ngi sama wet guddi ak bëccëg euh, di ma jàppale ñoom daal li li soxla mooy ma ne soxla naa nangam. su boobaa ñoom ñëpp dañuy mobiliser la ma bëgg lépp ñu def ko kon ñoom itam maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm mais en tout cas nag di beral nuyoo Adama Diop di ko ak beral ak cantam Adama euh, li muy def nii su ko neexan euh, man na ko bañ a def Adama du premier adjoint du deuxième adjoint te mu ngi sama wet guddi ak bëccëg di ma jàppale parce que nag ab maire yi boo gisee ñuy fal premier adjoint ak deuxième adjoint ay jafe-jafe moo tax ak liggéey bu tar mais am benn maire mënul bis bu nekk. mu nekk ci soxla yi nit ñi ak lijjanti maire bi Adama nag lépp loo xam ni nit waral na ma koo defal muy première action muy deuxième action Adama mi ngi ma koy defal parce que nag nit ki man duma ma kenn mais duma gërëm ku ma defalul dara. loolu tax may aadama nag dinaa ko gërëm dinaa ko sant maa ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla gën a jàppale vraiment te te musal ko ci cat en tout cas daal maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp yéen presse bi maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax bi ngeen déggee ni damay def set setal tey su leen neexan man ngeen a bàyyi ba ma woo leen mais dangeen ngeen lépp loo xam ne ngeen ko ci man dangeen koy bàyyi di defal ma ko mais loolu nag du sax li ci ëpp man jàpp naa ni du sax maa tax ngeen di ko def mais jàppale askanu Sénégal loolu moo tax ngeen di ko def parce que nag askanu Sénégal mënoo ni rek euh, presse la wala maire laa wala leneen laa sama côté rek lay lijjanti non non non non parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal bu baaxee ñun lépp la baaxal Sénégal bu yàqoo ñun ñëpp la yàqal mais tey am na nu président boo xam nag defar Sénégal moo ko moo ko tax a jog mais moom dong mënul dara mais il faut ñun population bi ñun maire yi ñun responsable yi ñu jàppale ko ba mi àgg fi mu war a àgg. kon jàpp naa ni daal euh, bu nu yàlla dimbalee euh, li ñu ko bëggee woon dinañ ko ne amee mais nag il faut ñu sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla yal na yàlla gën leen a jàppale te gën leen a suturaal maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu